armeelu Pikine yi nag ma ne armeel international la ñëpp fi am seeni waajur ay nitu yàlla yu baax ñoo fi tëdd ay wëlu yàlla ay nitu yàlla bu baax a baax a baax kon président Macky sàll mbooloo mii waa Pikine lenn dong la ñu soxla ci yow mooy nga jël dëkk ne delloo ñu suñu suuf sii ñu yokk ko suñu armeel xeexu nu politique nu xuloowu nu armeel yi moo nu boole ñu ma ko un constat la yëkkati foo xam ne foo doo ko dugg ci daaw da ngay jël jotam ak ci ànd ko Papa Laye les grands communicateurs Babacar Mbaye def étude du secteur bu bëgg def ngeen dimbali nu ngeen mu def l'exposé ngeen baal wax ñoy collectif buy gérer bayu armeel yi ñun tamit dañoo seey ci benn collectif bu tuddu sama souf mooy yokk suma armeel moy plateforme bi gis tay mi génn tay plateforme bi regrouper ay association ay mouvement ay association jeunes femmes groupement yu bëri ñu ñoom ñoo ñëw taxaw tay pour réclamer. ñu jox ñu suñu suuf pour ñu yokk suñu armeel xeex bi yàgg na nag xeex bi yàgg ndax armeel yi constaté nañ depuis 2010 la fees mais xeex bi suñu papa yi suñu maam yi wax nañ ci ba sonn mais tey jii nag jeunesse bi ñoo jël en mais les préoccupations ndax ñun ñoo jël boo gisee depuis profanation yi ba léegi ñun ñoo ci jóg di ko taxaw di ko joyanti collectif boobu nag ñoo am suivi tey xam na ne comme que profanation yi jeex na armeel itam fees na ñu tam ñoo war a jóg pour jël suñuy matuwaay pour que ñu yokk armeel yi si ginnaaw waaw mais tey moom ndax on avait enregistré 17 associations mais tay bo gisee foule bi nga xamné ñi yëg ak ñi yëgul ku ci nek rek noo ko ni ko déggee rek ngay ñëwee. prochaine étape bi ñi ngi invité ñëpp ci désherbage bi mi am chaque année bi yon nak ñi ngi ko japp ci le 13 décembre pour que ñëpp ñëw si mooy deuxième échéance bi pour que ñu bay armère mais nak mën nañ sax bay bayat ndax bay armère bi pare bay ci ginnaaw armée tamit war na mën a si les États ont bien réagi ci suñu enquête bi. wa tay dama ñëw en tant que doomu Pikine en tant que ku dëgg Pikine en tant que ku ay waajuram ñu denc leen ci arméeru Pikine yi nii te loolu moo ma tax a ñëw ci arméer non kontaan naa ci taxawaay waa Pikine ku leen gis xam ne ñii tey dañoo décidé tey jeunes yi paa yi ñëpp a génn maire yi kenn desul li ñu bëgg ci état mooy ngir yàlla ak bi nañu tijjil fii arméer bëgguñu feneen arméer fii lañ bëgg arméer dogal na yàlla dogal nañu 12 hectares 700 mi ngi fi nañ ñu dimbali laay war a suuli yokkalee ñu arméer yi fii nii lañ bëgg ñun bëgguñu leneen lu dul loolu te gars yi tey marché nañ gisoo leen benn yàq gisoo benn dégât bu def te xam naa ni gars yi ñu ngi préparé waat ay yeneen activité kon nañ leen dimbal ngir yàlla jox leen pour man lool moo gën a sedd man loolu laal laa ñaan